Euh, kon bokk yi loolu mooy yi nga xam ne am na solo ci weer wi bañ a fàtt njaboot gi ndax nit ak njabootam su defut la ko ca war su ëllëgatee balaa tabbi na danañ ko taxawal laaj laaj ko digganteem ak ñoom kon nag nu fonk fukki fan yi niñ ko waxee ci ginnaaw xam ne bés bu set ci fukki fan yii su dee yu tóol yi mën na am ñu dajee ci ak guddig laylatul qadr te bu boobaa fu nit di jaamoo yàlla ma ngi fay saafoonteeg malayka yi ndax ñi ngi yow ñëw di wàcc na tanazzalul malaykatu wa ruuxu fi yàlla yàlla wax bi isni rabbihim min kulli amr yàllaa leen di jox ndigal ne leen dem leen ca sama jaam ña nekk ak ñoom ñii julli ñii di zikkër ñii di def kenn ku ne nag boo nekkee da ngay def ndànk bañ a yàqal sa morom loolu moo ëpp tiyaabo waaw soo jullee nga julli su dul julli gi nga xam ne moom lañuy julli kii naa fi la di wax ñi ci des topp ko di dégg di déglu loolu yëpp yërmande la wa sadaqatu wa zakat wa du'a bokk na ci saraxe ak zakat waxoon nañ léegi ne zakatul fitr bokk na ci tey ñaanal say way dawlo buñ leen di fàttee mooy ñi faatu dañ leen di ñaanal bu baax euh, bu ko defee nag yonent bi moo ne man xaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban xufira lahu maa taqaddama min zanbi wa maa taaqara aw maa taqaddama min zanbihi nee nañ képp koo xam ne taxaw nga ci guddi guddig laylatul qadr ba yàlla dogal nga dajeeg moom dañ la jéggal say bakkaar lu jiitu woon lépp ñu ne nag bakkaar yéen ci jublu mooy alkabair min azunub loolu boroom xam-xam yi wax nañ ko ndaxte yonent bi saa sallam dafa ne assalawaatul xams wal juma ila al juma wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma hunna isajtunibatil kabair moo tax borom xam-xam yi ne kon kabair yi mooy bakkaari rey bakkan ak euh, sàccak njaaloog yooyu bokku ca waaye yi nga xam ne moom wax nañ ko yi ci des yépp suñu borom dana ko jéggal nit ki ndax diggante julleeg julli da koy far weeru koor ak weeru koor da koy far ajjuma ba ajjuma jot da koy far moo tax jullit bu fonkee di def jaamu yàlla yu bari ñaare man naa am insha allahu rabbul alamin dana ko jariñ te dana bari yiw ak ay tiyaabo bokk na ci jëf ju baax jiñ jëf ci koor gi lim nuy jural danañuy jural sunu xol gën a sell mooy jeexit ji ragal yàlla mën a muñ ab xiif bàyyi xel nemmiku way ñàkk ndax ku ne xam na ne ki amut ba nga xam ne mën naa xëy bañ a añ wala mu bañ a reer ku ne xam nu lu métti na te tegu ko boppam ak ñàkk la ñu leen bàyyi xel baax danañ ko jëlee bi ci des mooy dina wàññi graisse ci nit loolu boroom xam-xam yi ñoo docteur yi la ñoo wax ne dina wàññi loolu ba noppi dina noppal machine biy defar di reesal sa ñam ñam ci sa ci sa biir loolu mbirum zaahiru la waaye mbirum baatin danañ ci jëlee cofeelu yàlla ak yërmandemul al mahabbatu wa rida wal ajr wa sawaab wa baabu rayaan wa maxfiratu wal itq wa rahmatu wa zilatu bayna al abd wa rabbi wa safaa ndax alquran day ramm koor day ramm ci xadis boo xam ne saxiix la ii yëpp danañ ko ci jóge mooy danañ ci jëlee bëgg sunu borom bëgg nu ngërëmal sunu boroom ak payam ab yool soo liggéey nu dugg ca bunt ba ñuy wax rayaan njëggalug yàlla ah, yërmande yàlla njëggalug yàlla goreel ci sawara yooyu yëpp kon danañ ko jëlee ci biir koor gi loolu loolu mbirum sunu borom la waaye yonent bi wax nañu ko te lim nu wax dañ koy gëm bu baax ni mu gëmee alquranul karim su ko defee kon ñoom ñaar dañuy wax ne yàlla kat kii manaatu tahaama wa sahwa fa sa fi'ni fii loolu xadis la bu wér alquran kon ak e, weeru koor dañuy rammoo ëllëg bu ko jaam bi fonkee buñ dajee ak moom yowmal xiyam ñu fonk ci zakatul fitre te mooy li ñuy joxe muurum koor la ko olof di wax muurum koor xam naa kañ ko jox muy muuram moo tax ñu tuddee ko muurum koor asakay muurum koor sunna waajiba la faradaha rasulullah sallallahu ci fuqaa aw maalik yi soo demee ci borom euh, borom risaala ni mu ko bindee dafa ne sadaqatul fitri min ramadan ala nnaasi saaun min tamr aw saaun min sha'ir ala kulli muslimin xorr aw abd dakar aw unsa min al muslimin mu firi nag saa mu ne arbaatu am daat mu àndaar la nattuka ay jundaan natt muurum koor di ko joxe képp koo xam ne yaa ko yilif te mënalu ko boppam nga defal ko ku ko mënal sa bopp nag nga defal ko sa bopp koo xam ne kii dundal ko yow la war rek nga génne ko ko koo xam ne dundal ko yow la war nga génnewal ko soo soo ko joxee ci bésu suba gi teel bala ngaa julli ci danañ kon xayma nag ci deux cent un soixante seize grammes dëkk bu nekkin nag lañuy dunde la ëpp ca la dunde bu dee Sénégal ceeb yaakaar naa ne ceeb ba fi ëpp lu ñuy dunde dugub dugub ba fi ëppoon waaye léegi ceeb jël na wàllam fëriñ xaw ma nag fëriñ dafa seer man naam nit ki du ko man kon mën na ko xool ci ceeb yi gi ci nekk ci digg ndax ñetti ceeb am nañ ko façon ñetti ceeb bu gën a seer boo xam ne ku mel ni man du ko dépassé ak bu xaw a yem a mbaay boo xam ne léeg-léeg bu jamono neexee ma dépassé ko ak bu yem bi nga xam ne moom macha allah boo demee ci bitig bi ñu jaay la ko ndax bu ñuy jënd dañ lay laaj laaj nañ jigéen ñi ñu wax ñu ne ñetti prix ci ñetti façon yi ceeb kon nag kum ci neex nga jël xayma njëg gi te mooy génne prix ba suñ ne ñaari kilo ak liibar wala genn wàll liibar ak genn wàll liibar wala ñaari kilo ak liibar loo ci man nga xayma la muy jar soo ko xaymaa fi ne nga génne loola yaakaar naa ne loolu lu neex a takk la ndax deux cent soixante euh, deux cent euh, deux mille deux cent soixante seize grammes soo ko xaymaa rek soo demee jaaykat yi dañ la wax na muy tolloot kon loolu bokk na ci yi nga xam ne danañ ko fonk lool nañ ko fonk bàyyi ko xel ci koor gi muy asakay muurum koor waaw danañ koy génne ci ñoom nañ ko waxee ñoom ci yu bari di ci lim juróom-ñeenti xeet ya waaye am na ci yoo xam ne nun amuñ ko waaye liñ am nga xam ne ñi ngi koy jëfandikoo ndax dañ ne des na ko génne ci la gën a not ci dundab dëkk bu ne loolu it kon ñu bàyyi ko xel bu baax nef kon mënees na ko génne ci yu bari ndax ñun fi ne danañ jëfandikoo euh, comme ni ma waxee ceeb dugub fariñ mu xam mu xam sa ñebe yooyu yëpp fi ne dañ koy jëfandikoo lu bari daanaka doo gis famille bu toog ñaari fan te ko loolu kon bokk na ci li gën a not ci sunub dund ku ko mën waaye yee yëpp dafa seer daakaar naa ceeba ci gën a a xaw a yomb mook dugub ak mboq yooyu daal ñoo ci gën a xaw a yomb waaye ab julli nag buy def day xool la gën a baax ndax yàlla boo koy jox da koy jox la gën su ko defee loolu bokk na ci yi nga xam ne euh, nañ ko bàyyi xel bu baax ndax daa wax ne wa yuxriju rajulu sakaatal fitri an kulli muslimin talzamuhu nafaqatu bépp jullit boo xam ne bépp bépp bépp borom kër wala responsable bu nekk ci njabootam ñam yilif te man leen ko defal na ko génne ñoom niñ ko waxee dañu yustahabu ixraajuha isa tala al fajru min yawmi al iid wa yustahabu qabla min yawm aw yow may yawmayni loolu tamit fuqaaw yi ne nañ mënees na ko génne lu jiitu bés ak ñaari fan ba tey kon nag yooyu yëpp am na solo waaye di ci gën a bàyyi xel màggal sunu boroom ndax jaamu yàlla yëpp baax na waaye nañ koy def ngir màggal yàlla lépp lu ñuy def xam ne yàlla nu ko digal nu def ko ngir màggal suñu borom waaw yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum Sëñ Tuubaa nee na li muy firi mooy mulaasamatul xayri wa mufaaraqatu shar mais nee na mooy taqoog lu baax taqalikoo ak lu bon Sëñ Tuubaa nee na yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum nee na loolu lay firi yéen nit ñi jaamu leen seen borom nee na su ngeen ko defee tar ba fii tijaaratikum su ngeen ko defee da ngeen tonowu ci seen commerce mi ngeen di def wa illa fa antum mimman xiila fihim fa ma rabihat tijaaratuhum wa ma kaanu muhtadin nee na su fekkee nag defuñ loolu yite jooju joxuñ ko jaamu yàlla gi nee su boobaa fa ñuy dugg mooy fa ma rabihat tijaaratuhum wa ma kaanu muhtadin nee na kon jaamu yàlla gi mooy mulaasamatul xayr wa mufaaraqatu shar mooy jéem a taqoog lu baax teqalikoo ak lu bon loolu la wax mu ne inal imaana billahi wa bi yawmil azim allazi yajalul wildaana shiiban sëñ tubaa nee na ba ngeen déggee gëm yàlla gëm bés péncam bi nga xam ne ba bésub keroog gone sax day bejaaw ngir tiit ga nee na yurisu iksaar al xayr wal intihaa min an li muy waral mooy dafa war a jur ci nit ki bari lu baax bàyyi lu bon mu ne nag fa man lam yaksuril xayra walam yantahi ani sharr ku ngeen séen ci àdduna bariwul aw yiw di ci góor góorlu bàyyi bàyyiwut lu bon fa sa bi muminin billaahi sëñ Tuubaa ne na kooku dub jullit day wax ne jullit la waaye dub jullit ab jullit day bëgg li yàlla bëgg ci moom rawatina rawatina li li mu ko sant mu ne wala bi yowmihi llasi yulaaqi fihi l maru wal maratu jasaahuma li anna al imaana billaahi tabaraka wa taala ndax sëñ Tuubaa nee na liimaanu billaahi taala yaddoo ila al imtisaali ila al imtisaal amrahu tabaraka wa taala wa ijtinaaba sa nahyahu nee na gëm naa yàlla li muy jur dafa war a jur ku la xool seen la ngay jëfe ndigal yàlla yi kon liñ doon wax lépp ndigal yàlla la te loolu lañu suñ Tuubaa digal neen nañ ko di def tey bàyyi wattandi ko tere mi wa amal imaanu billahi wal yawmil axir fa yaddu al abda ila idaamati l xayri kulla waxtin nee na loolu jëfe gi dalay woo ci saxal la ci nga góor góorgóorlu ci saa bu nekk fal xayru baabul janna sëñ Tuubaa nee na yiw day buntub aljanna yiw dey bunt day buntub aljanna allati wa'ida almuttaqoon buntub aljanna bi nga xam ne moom la nu sunu borom digal mu ne inna al imaana billahi wa bi yawmil azim allati yaj'alu mu ne yiw day fa kullu man alima mu ne képp koo xam ne xam ngeen ko nga xam ne allati huwa alayhi xayr ngeen mën a waat ci yàlla ne kee lam ne lu baax la nee na fal yaalam bi annahu ala tariqil janna sëñ Tuubaa nee na xam leen ne waajooju mu ngi ci yoonu aljanna nee na lu gëm yàlla day woo nit ki ci mu jëf lu baax ku mënta jëf lu baax mënoo bàyyi lu bon doob jullit da ngay tudd jullit nee na ku ngeen seen mu nekk ci ak ak lu baax nee na mi ngi ci taxaw ci yoonu aljanna nee na képp koo xam ne kii lam nekk doonul lu baax fal yaalam bi annahu ala tariqi lu baax la na xam ne mi ngi ci yoonu aljanna képp ku ngeen seen lam nekk di safaan ba na xam ne ci yoonu safaan ba la jaar noonu la tënkee noonu la tënkee gëm yàlla ak def lu baax xoolal xoolal boobu jàngale bu rëy gëm gëm naa yàlla na tax nit ki di def lu baax bàyyi lu bon kuy def lu baax nanga xam ne kuy def ndigalu yàlla yaa ngi def lu baax kuy def ku ngeen mën a waat ne mi ngi def lu baax mi ngi tege ci yoonu aljanna ku mënta bàyyi lu bon doo jëf lu baax yaa tudd sa bopp jullit waaye doob jullit ku ngeen séen ngeen xam ne safaan rekk lay jëf na xam ne ma nga jëm ca safaan lu leer la kon <laughs> lu leer la kon nag allazi fa kullu man alima anna alladi huwa alayhi laysa bi xayr fal yuuxin bi annahu fi tariqi naar al muuxan allati tatali ala al afida noonu la ko tënkee mu ne kon nag leeral nañ fukki fan yi wax nañ ne nañ ci góor góorlu di ci taxaw ci guddi yi di déglu alxuraan di ñaan di ñaanal suñu mbokk yi di saraxe di dimbalante ci suñu biir yeesalaat suñu pas-pas dàkk guddig laylatul xadr di jàng alxuraan bu baax a baax a baax ndax ci la wàcc koor baax na ndax dana tax ñu wér suñu xol dina laabaat dina jural bëgg yàlla dina jural ñu gën a jege suñu borom dina jural yërmande akum njëggal ak goreel ci sawara dina ñu jural it bés yi malaayka yi dikk ci jàkk yi di yóbbu jaamu yàlla yi ñu saafante ak ñoom ndax tanazzalul malaayikatu wa ruuhu fi fi ah, wa ruuhu fiha bi isni rabbi min kulli amr kon loolu am na solo ci ci weer wi danañ ci jëlee taqalikoo ak graisse danañ ci jëlee tamit suñ machine noppalu ci wàllu docteur médecine loolu yëpp kon yàlla defal nañu ko muy yërmande zakatul fitre bi wax nañ ne manees na ko xayma ci deux imam yaa ngi fii rek ku bëgg ñëw nga laaj leen ndax loolu rek lañu leen leen fi indee Cheikh Mamadou Basir a ngi fi sëñ Xaadima ngi fi tabarkalla ak euh, sëñ Isaa ñoom ku bëgg xam dara rek soo dikkee soo bëggee xam ñaata lañ ciy joxe nga laaj leen ñu ne la nangam la nga joxe su ko defee nag kon noonu lañ bëggee ko ko joxe ci fajaru buñ ne weeri feeñ na tey la ñuy wari nga mos dara bala ngaa julli ji ndax da ngaa wooroon weeru koor bokkut ak tabaski ki amam tabaski dañoo sopp ci moom mu euh, jàpp ba ren di am tabaskeem ba noppi bu dee koor nag dañoo bëgg nga mos waaye liñ ci gën a bëgg mooy tàndarma ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko def bi ci des mooy boo koo yilif nga joxeel ko ko muy asakay murum koor koo yilif nga joxeel ko ko mën ngaa joxe euh, lu tollook njëgu li ñuy dundee li ci ëpp bu la neexee nga natt ci saako ceeb bi bu la neexee nga natt dugub bu la neexee nga natt ci yeneen waaye yooyu ci gën a lëng ci lu Sénégalais yi di génne muy njëgu ceeb wala njëgu dugub su ko defee kon loolu la ko ko def weer wi incha allah am nga liñ ci bëggoon yàlla na nu ci yàlla defal nag li ci yàlla digle nee na weer wi weer la woo xam ne wii kat képp kuñ ci xañ yiw fukki fan yi sax yonent daan ko nee na kuñ ci xañ yiw xañ nañ la yiw ba faw waaye nag weer wi la weer weer la woo xam ne bu ngeen ko wooree ba noppi da ngeen dajeeg yatt yi benn ci ñoom mooy njëggalu yàlla wala yërëmandeem wala goreel ci sawara kon nag yàlla na nu ci yàlla dajale ak ci ñett yooyu suñu borom dignu ci benn te yonent bi daan ci farlu muy li'tikaaf fàttali nañ ko ci la bokk te mooy jaamu yàlla ci sax yaakaar naa ne ku xamoon Seex Muhammadul Muntaxa xamoon nga Murtada euh, ridwanullahi alayhi xamoon nga ne ku ko fonkoon la su fukki fan yi masaan jot fa lay nekk ba fajaru julli ji mu jaare noonu dem ci jàkkañ yal yàlla boole dimbali ñu fekkee déwén waraat jàmm ndax dafa mel ni ajjuma ji mooy ajjuma ji mujj ci biir weer wi eh, kon nag alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim taslima